waaye gars yi maa ngi leen di ziyaare jiital ci nuyoo bi ali bayti rasul waa kër seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg ci xalif généraux yi yëpp ak seen i njaboot teg ci kilifa aada yëpp ak seen njaboot teg ci kilifa àddina yëpp ak seen njaboot yéen ñii xam ni da ngeen jeex ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di ziyaar zaahiran wal baatinan di leen jox sama loxoy xol fekki seen loxoy xol ndax mënumaa jox ku nekk loxo mbaa yéen a ngi ci jàmm mbooloo mi kii bëgg a ñëw bala may ñëw ci moom dama leen di wax ni yéen ñëpp muhabba bi ngeen am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ngeen ñëw ànd seet Seydina Mohamed ñëw ci biir saal bi bii leen ko ni tàntu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ku way ku mën a doon ku ne nga ànd ak moom dañ leen di ñaan yéen ak waykat yi ngeen toog gën a defar dekooru rasulullahi sallallahu alayhi wa ci jàmm ji ñu woote muy festival yaa salaam ci jàmm ji ñu woote bëgg mu nekk suñu biir law ci réew mi law ba wër àddina bi ci jàmm ji nga xam ni xéewal ak lu ne mu ngi ci ci jàmm ji nga xam ne doo julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jàmm eh, mbooloo mi danaan toog wala du toog di ngeen fekke gaay wala du ngeen fekke gaay di ngeen décorer rasulullahi saal bi wala du ngeen ko décorer Ousseynou Ndiaye mu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul كابون والبسير قد بر وكلهم سر نور وأسرار رام الورى fàddilin muslinan la woo ku sopp sëriñ fàllu gi rasuulillaahi xaraa xal bi la woo bil jismi takraaru li annahu lil hudaa wa nuuri jalaa yaluumu jismiya daban fil julusi bila ilmin wala malin wa nafsu xarra maaya maa maa saaya il xayriyat wa suwa wa li saadaati daban wa xarra yàlla moo wax wa fee xaarin wa fee kaale bismi rabbiya wal maxbuus mi braam xadaa xaajis mi ya amal xalbu yatlubu min al manaaxibi tasweefun wa israa fal yawma waa وجئتاي بن بدن للاي توبة من أدنى وخفاء خفار لغفر سنوبا وفك كان قبلي بمن علي لترك زوروار بمن يخاطبني في زور روضاته بيتان من خول من بالعرف أمار زرمة يب وإن ستت بكدار وعلم من دونه سحل ووار لا naka buxdun min ziyaarati innal muhibba liman yaxwa usawaaw ilayka xat tubtu min xawli wa min amali wa min jamii lasi xad kuntu axtaaw wa joxtu waaj ilayka al yawma multamisa min katta jawsa ma bawsa وجهت وجهي إليك اليوم مرتاجيا كوني لديك كمن حاج ومن زار أبلي بفضلك يا وابو يا الناس ما زاد تخارب شمس تخارب في سوى الأخمام أو النوى إنهم فيما يرى باسر بحر النوى بار ونار للبدر نور عظيم يسنار به لكن إذا لم يكن لسمس إسآر للخصب طوال لدى عين لو ناصرت لكن نزاع لو لم تنبت أشجار يكون للبر ماء تايابا مزربه لكنه من خليج البار أختاره التال ماء ولا كالوبل منساجما ولا تجار الندى بالماء يمتار سك الملاس الذي أرجو نجاة به دنيا وأخرى فليت أو لو الجار وهو الذي قد جسمي عن زيارتها لكن لساني لو كالخلب سوار لا عليّ li wajj illaahi daynu sanan mu saxsanin kulaa min yawma yuxtaar wa huwa najibu lazi fi wasfi xalqaati wa xulqi xilatas jaawon wa asar walam yaji min sawil iflaaxi wal bulaxa bi sajni wa seexi mi maasa mixsaar ahlul fasaadi turan bi sanaa ma dawoo وليس يدرك بالأكواب تيار كحب وسام والبسير قد بروا وكل سرو نور وأسرار فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار هنا الكواكب يفيا السما للمساء خير خلق الله منزلة لو جاء نحو كل وراء يار رحم الورى نيل فضل المسلمين لو dugg leen ci kaw ñu màggal Sëriñ Fallu ngi Rasulillah may sa biige kumba faal yaay baabil uloom Seex Ibra Faal baabil muridin may sa biige kumba faal yaay baabil uloom may sa biige kumba faal Seex Ibra Faal baabil muridin may sa biige kumba faal ay baabil uloom may sabiik e kumba faal may baate ulloode muridin may sabiik e kumba faal sopp seex abel muridin may sabiik e kumba faal may baate ulloode muridin may sabiik e kumba faal seex ibra faal abel muridin may sabiik e kumba faal may baate ulloode maam Cheikh Ibra Fall sa biga kumba faal yaay baabil uloo illallah may sa biga kumba faal yaay baabil uloo ibra faal yoon wii di yoonu bay faal yoonu yàlla la ku ci mën ta wax lu baax nga ci mandoo yoonu yàlla ku ci manta waxaloo baaya te ibra ne bay fal bu nde ci ndigal wër di sikuru laay wëndeelu bay fal na ngeen ci maandoo wa di wër wër di sikuru laay wëndeelu bay fal na ngeen ci maandoo te ibra fal nee na wëndeelu bay fal mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax. jërëjëf Ousseynou jërëjëf. jërëjëf Ndiaye mu may ñu tuuti rek benn kaddu. jërëjëf ndax daa am lu ñu tax a teew fii. yóbbu borom dogal kilifa. yóbbaaleel ñu micro bi. waaw pour kii ñëw. di nuyu mbooloo mi. di nuyu bu baax di